doom nga suma taalibe nga man sa nijaay la sa lamb yuuxu naa ko fi ba fan yi jar nga ñun xam ne ne yaa ngi ci loxo yu wóor ndax toojaat nga say wen saw pel mbagg yi wàññeeku na dafa mel nii est-ce que yéen a ma dégg nante est-ce que donc comme yaa ngi ci jàmm dëmmu TikTok bi bi mu la tooñee dafa jëfu noq nga ko ba àdduna xam ne noq nga ko man maay ñaan intervention teggil sa tànk bàyyil mu sedd yaa neex faral dimanche yaa neex a àndal xale yi ànd ak yow mosoo dugg combat may leen defet ndam rek suñ am gàcce ci yow ndam rekk kon amati nga ndam naaru cent franc ñuus nga ko naaru dëmm bi jëfaruloo nga ko ba pare nag fi nga ko jàpp nii boo ko bàyyul CMD test xam nga jëkkër ji da ko xamutoon takk ko mais bu ko xamee du ko takk léegi boo ko weeree ba jëkkër ji fase ko ku koy takk sa papa laa koy may kon lu leer laa la wax boo réglewul ba jëkkëri naaru fase naaru sa papa wala seen nijaay laay may naaru coow li jeex parce que moom bëgguma yabaate donc jox naa la ndigal en tant que sëriñ mais maa ngi lay ñaan en tant sa tonto en tant sa frère bàyyil mu sedd on est d'accord tim ndërmelu mbërëkëta bërëxlu rëw tës ñoom ñëpp baal mu sedd all right ay waxe nante ma jàpp ko foofu del inventé lu nit ñi dul xalaat mais bul musa nekk ku sérieux bul musa a nekk ku ñàkk fayda nekkal ci diggante bi ba pare am na beneen feeling charme booy dégagé mooy sa forme bi baax na léegi maa ngi ko gis mu ngi màggee ginnaaw donc la fait muy màggee ginnaaw noonu dafa am lu mu lay may may wax ak yow nante ma daf lay may nit ñi foog ne ñoroo ñëw pour nax la pour tëddee la doxaan la da ngay mel ni ku dof utiliser leen parce que góoru sénégalais dafa faible taat yu rëy rek la baax te dafa mel ni yow sa bàjjan dàmp na la ni ma la xoolee balaa ngay daanu bi nga wanee ginnaaw ma gis la xam naa ne ku bàjjanam dàmp nga ba pare amoo complexe caméra loolu day wane beneen feeling dafa am lu muy dégager léegi nag nga sa forme boobu góor ji saay-saay dañ lay jàppee ku ñorul dañ lay bëgg a iri di la tëddee ci iri boobu nag nga leen di iree maanaam sénégalais faa mu jàppee la dof nga joué ci intelligence am ba mu xam ne yaa baayam mu jox la respect donc soo bëggee sàmm sa carrière amal sa benn far boo nopp bul nangu ñu bëri di la tëddi buñ la tëddee rek yàqu nga ana ndeyloo dañ ko doon présenté kenn rek may ko cinquante mille tëddante bi bëri ba kenn gisatul ko fay na ana ah, yow boobu tàmb sax ah, oh, kenn déggatu ko dix mille problèmes kenn déggatul ko saa ngi dégg donc nekkal sa ligne bul mës a dugg ci kaa kenn doo ko attan bis boo kaayee ñu kaa la defal li ngay def de ko def naturellement bul force bul yëg ne star nga sénégalais mën na la def star mais boo ko yëgee rek mu def la noonu donc conseil bi la am pour na la musique du dara lu mooy entertainment you are entertaining people affaire bi dara lu mooy reetaan loolu nit ñi nit ñi kafree kontaan te yaa ngi kontaan loolu nit ñi donc c'est euh, beneen bi ci des dama bëgg ñun ñëpp ñu dajaloo naan di tey ngeen dimbale ma ngir yàlla ñu porte plainte Aïssa kone s'il te plaît Aïssa Koné réew na am na jot ci misigam bi man nag du ma critiquer pour lor nit damay critiquer pour encourager Aïssa da nga ñu war a respecté nawloo ñu ba booy teg dara suñ loxo na neex quoi mais tamit nag duñ la porter plainte mukk bàyyi producteur bu produire loolu encouragé la ba nga am audacité ne neex na ba nga uusi koo clip di ko teg suñ loxo suñ àq yàlla bum la daal suñ àq yàlla bum la dal parce su la dalee di nga dee sa clip bi macha allah top sañsa bi macha allah. dégagement bi defar bi montage bi macha allah mais Aïssa sa baat moo neexul say lyrics ñàkk xorom critique bi nag bu mu la blessé jël ko positivement nga dimbale ko sa bopp ngir ëllëg mu dimbale la gisoon neen fi daba cooy xaw ma femme bi sant cooy hmm, baat bu naqari borom ansi te mu santoon cooy nii rek naqari baat cooy la santoon de aram cooy gisoon neen fi aram cooy tu donc yow doxalal xeex eh, jigéen hmm? mais sa woy bi neexut lyrique si neexut sa bi neexul lyrique si neexul Ngaaka Blindé ak Mbathio Ndiaye génnuñ Mbathio suma doom la génnul ak Ngaaka loolu amul Ngaaka moo bëgg Mbathio en tant que sœur ñu bëggante xaritoo fa la yem Mbathio xoolul Ngaaka Ngaaka jabaram war na koo doy loolu amul loolu amul su amoon ma xam ko wax ko ça c'est pas vrai amul amul tey amul suba maa la raw suma doom ji ci loo nekk dangaa bëgg sa tur dama laa tudd léegi rek nga nga woote. sama tudd. maa ngi nii di live suma paree woo la. ay ah, ay live. Mhm. ngi da ko tudd rek mu woote. suma doom la mbàcc ku ko laal daf may naxari bàyyi leen mbàcco jubale naa kook am soo am soo dootul laalati mbàcco am soo suma taalibe la mbàcc suma doom la man daal ku ma bëgg bëggale ma mbàcco bu leen ko waxati dara dégg ngeen su ngeen waxee mbàcco dara suma xol bi lay jàpp daf may mitti hmm? digganteem ak Sidi Diop du dëgg waaye nag Momo Dieng Fary Mbathio Ndiaye la woon Momo cuucu doxaanoon na Mbathio Ndiaye loolu dëgg la Momo Mbathio rek la ndoboon di ko topp rek waaye Ngaaka Blindé du dëgg lii ma nettali ci Mbathio nag ku ko nettali tey nga dee parce que man man munuma <laughs> munuma denc secret lu bari <laughs> moomoo jéem fari mbaaco njaay la woon mu naan saf na ba noppi ma ne ko dara safagut ba ñuy sàppali Mario Mbaye xamut boppam moom daf doon doxaan mbaajo mbaaco bañ waaye du far man lu ngeen bëgg a xam ci mbaaco exclusivité laaj leen ma ko man ma tontu leen man may papa man maay man may bàyyi waaye ngaaka belend mbaaco xool mbaaco de ngaaka de fi nekk nii su fekkee su dee su ma leen waxee secret du ngeen ko wax mbàcco mën naa leen a wax mais yéen ay duulkat ngeen su dee bu ma leen waxee du ngeen ko nettali mën naa leen a wax su fekkee da ngeen ko nettali man ma bàyyi ah doo leen ko nettali ok benn milliardaire malien la mbàccu di génnal kooku la teseloon France jaarale ci Sidi Diop milliardaire malien Um, keep waiting for your transfer you will get it su fekkee da nga fa ne my money is your money ba da ngay ñëw naan ma am waiting for my transfer you gotta get it keep asking for it and keep waiting xamoo sa bopp. boo ko mënee urgence boo mënul nga dem urgence Matar Diop Subateel xelanti woon Sénégal. xam effort yi ngay def si culture ellanti woon Sénégal xam coono bi nga def ak bi ngay def ak bi ngay defal musiciens yu ndaw ak koo ci jàppale ni mu lay wore ku la war du la bett ndax miin nga ko gor mooy kan mooy ki nga seqal teraanga muy neex jamono ñëw mu màtt la nga yu rusa yuuxu lan moo tax yuuxuwoo ndax bu boo yuuxoo ba nit ñi ñëw doo mën a wax ne mataar mooma ma màtt ndax sa ngor gi moo dul nangu fam jaar ak yow lam sonn ci yow lam def ci yow nit ñi ñëw ngay wane gaañu naan moo ma matt gis nga moo ma def lii moo ma def nangam donc matt bi mu matt moo tax bàyyi naa ko dem naa as gor du ko mën waaye nag su may wax man ku xamul du xam waaye bu ëllëgee ba wor am ci kum mën a jóge xarit kum mën a doon nanga xam ne yow siggi nga sa promes def nga ko li nga digaale woon def nga ko sa coono réew mi gis neen ko sa finance réew mi gis neen ko sa taxaw réew mi gis neen ko ku la fayutit xol yi bëgg neen la ba pare te yàlla dalay fay man Cheikh Ahmed nag maa moom suma mbëggeel maa moom suma kóllëre jox naa la ko ba mu jeex jóob te yow xam nga ne du xaalis ndax mosoo maa may Cheikhu Tidiane rek la ak bëggante ñu ngi sa ginnaaw ci loo ne ñu nga ci bés booy xeex ñu ngi xeex bés booy daanu ñooy njëkk a daanu lu rek la am lu ma ci wax Sidi Diop félicitation jàll na rafet na yàlla na la jikk wasalaam Wally Ballago Seck man nit ku ma yéem nga waaye ku la yërëm la li ma yéem mooy ngor gi ngay àndeek sa nit ci biir ak ci biti lu nit ñi yëg ak lu nit ñi yëgul lu ma yéem la mais lu tax ma yërëm la mooy charge bi dafa rëy te musique doxul ngay dugg fu nekk di liggéey di góorgóorlu pour teral gor yi nit ñi dem neen ba gëm ne millionnaire nga tey yaa gën a pauvre ci senegal booy tiit di dee ngir ñàkk waaye loo am partagé ko ñu ngi lay encouragé ci loolu di la ñaanal yàlla ci loolu man de ñeewuma la dama la yërëm ndax ñi nga àndal la ngay sonn ci ñoom la ngay def ci ñoom ci muñal leen ci jéggal leen ci encouragé leen mais ci jubale leen waale bët bu set mu teg ay nitam jubale leen lii la dëkk constantly bët bu set mu teg ay nit di leen jubale lu mu am jox leen luñ ko xamal fenal ko lu mu xam ci ñoom noppi loolu dundi gor la waaye dundi walliw la yal na la yàlla fa yàgg say nit naw naa la nag ci sa doom yi bàjjen yi la wër nit mbokkam moo tax bu nit taxawee di juger nit parce que musicien la safara la jëm danga nga xamul nit ki lan lay dund en dehors de musique ci muñal jaami yàlla ci sutural leen ci sagal leen ci teral leen boo ko xamul ku la neex juger